يا ربنا إن الورى تضروا لأوليائك معا ليشفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أهد يا من تعالى لم يكن كفءا أحد asalaamaaleykum bokk jullit yi seetaan ak bokk taalibe yi yi nekk ci biir Sénégal ak bitim ñoo ngi leen nuyu di leen ndokkeel ñoo nga mbégte tey toog ci kanamu Alaaji Abdou Aziz Mbacké moom sëñ Abou Madiyana moom Serigne Bara ñu jóge nag ci bis bu rëy muy màggalu Mbàkke Kajoor sëñ bi am yéene di santaat taalibe yi te di leen ñaanal seen taxawaay ci bis bi ak bis yi weesu rawatina nag waa fédération Cyril Masson gépp ci njiital Cheikh Malick Ndiaye Cheikh Moutada dana ci ñëw waaye ñu ngi sant bu baax daayira Hizbut Labraar ci yëmbal maam Cheikh Lakoor jiitu ko ak njabooti ki na ndaw gépp ci géej waaye Serigne Mor Gueye ak inna allaha maana ñu ngi leen sant baax seen taxawaay tufatu Moutada yi na sëñ Bassirou Cissé ñu ngi koy sant Pikine El Hadj Cheikh Thioune ak waa Dawu Chikri gépp soppi Serigne Abdou Aziz Abo ci Marème Mbodj jàmbaar ji jiite ko ñu ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay di sant nag Thierno Ndom di kenn ci kër gi ak njabootam gépp ak rakam ca parcelle Serigne Moursala Diop mooy jëwriñ jë ànd ak Thierno Ndiaye ak sëñ Fallou Thioune waaye Ndakaaru sëñ Mbayloo Guèye ak Ablaye Guèye Jurbel Maxan ja Maxan Jaara ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi ci màggal gi ak yu weesu muy daayira Matlabul Chifaay ca Jurbel ca Ndar nag ñi ngi sant baax soxna Kange Dioum ak Ndeye Diaw Mbaye ak Cheikh Papa Ndiaye ñoom waa Nooru Daara ni gépp ca Ndar ñi sëñ bi neen mi ngi leen sant bu baax ak sëñ Zabi Ndiaye ca Ndar ak waa ni gépp sëñ bi mi ngi leen di sant ci Touba ñi ngi sant nag Moustapha Guèye jëwriñ ja ak waa Kantul Muhtadina gépp Kayar Nogay Cissé ak Moustapha Badiane luga Ousmane Thiaw ak Badara fay ak Gora fay ak Ablaye fay ak Daoud Samb di sant nag bu baax mboolem fédération séralmaçon yi féete bitim réew ci Italie sëñ Modou Pañ mooy jëwriñ ja gis nañu liggéeyam ci li teew ak lu weesu ca France Ibra Cuun ca Bordeaux ak Abo Madiana seen ak sëñ Abo ñan ak Mamadou Gadiaga ak Cheikh Thiam Guèye ca Gabon ñu ngi leen sant bu baax ak taxawaayu Ablaye Guèye ci Espagne waaye ñu ngi sant bu baax ci Amérique kër géey ak Abo Madiana jaw di sant nag mboolem soxna yi aju ci fédération Sëriñ Mansour yëpp seen taxawaay ajartu Ndeye Marème Dieng ci Pikine maam Sey Guèye ñu ngi koy sant Adil Koli maam Ngoone Guèye butigu waa kër sëñ Touba maam daam bare njariñ njëriñ tubaarkàlla taxawaayam gis nañ ko ak mbooleem ñi ma àndal ñëpp soxna ndey géey Diagne ñu ngi koy sant ak Codé Thiam. ajaratu Faati Géwal Diouf nooree nii ñu ngi koy sant baax gis nañ taxawaayam. ci fédération bi ak ci digganteem kóllëre gi dox ci digganteem ak sëñ Abdou Aziz Abou Madiana xamna bala ma sore ma jox kàddu gi nak Cheikh Serigne Mourtala Diop mo wax ci turu fédération bépp nak ci bir réew mi ak bitim réew. assalamu alaykum ci turu fédération Sirul Mansour jëwriñ bi sëñ Malick Ndiaye mu ngi sante ñep ci liggéey bu rafet bi nga xamné talibé ñu koy def waaw ci turu Cheikh Abdoul Abou Madiane khidmatul khadim Baye Fallou sëñ bar mi ngi sant ñëpp nag fàttewul kenn taalibe yi ci bitim réew ak ñi ci biir biir réew mi sëñ baa ngi di sant ci seen liggéey bu rafet bi ngeen def ci màggal gi Mbàkke Kajoor bi ak yi màggal yu wees wi sëñ bi fàttewul kenn mi ngi ñaanal ñëpp waaw yal nañ ko tey déwén yu bëri. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu. mbokk yi nga xamante ni bii dafa séq ak ñoom diine ji fii ci yëmbal ak li ko wër. mi ngi jooyal ay cant di ko jëmale ci ñoom ku ci mel ne sëriñ bay Sylla nga xam ne mboolem ñi fi yor kër sëñ Touba yi mooy seen jëwriñ buñ ko tuddee mboolem fi kër sëñ Touba rek dugg nga ci biir loolu. sëñ nag da cee am aw dog ndax moom dafa séq ak sëriñ bi liggéey boo xam ni wàllu jumaa la taxawe te séq ko ak sëriñ bi itam mi ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi fàttewul itam maire yi nga xamante ne bii dafa nekk ak ñoom ci yëmbal ak li ko wër. ku ci melne ne le maire Daouda ndjay digganteem ak serigne bi ku nek xam na ko di fi indi ay teranga ak am taxaway bu reuy ci wetu serigne bi serigne bi neena gis na sa taxaway mi ngi lay sante bu baax ku ci melne itam responsable politique bi nga xamanteni bi itam sekk na kóllëre gu mag ak serigne bi muy serigne Mansour saw doxna ba dik ci kër gi ziaré sekk ak serigne bi lo xamanteni bi kenn werenteedu ko fàttewuñu itam le grand responsable politique maire monsieur Amadou Jara, yàgg ak sëriñ bi moom it bi mu def ci màggal gi sëriñ bi gis na ko mi ngi koy ay sant ak mbooleem ñi nga xamante bi moom la ko àndal yeneen taalibe yi nekk yëmbal ak li ko wër yëpp te seq ko sëriñ bi ci wàllu kóllëre ak itam ak daayira yi ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn sëriñ bi mi ngi leen sant gis na seen taxawaay yàlla nañ ko yàgg defandoo jërë ngeen jëf. dégg ngeen ni ko jéem nañuy waxee sëñ baa nga seet mbooleem ku mu loon liggéey bi ci màggalam Mbàkke Kajoor biir réew mi ak bitim réew seen liggéey ñëw na mu ngi leen di ñaanal waaye nag sëñ bi nañ ko déglu ndax am na kàddu yu mu war a jottali sëñ Alaaji Abdou Aziz Mbàkke yow lañ jox kàddu ki a billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وخلفائه وخدمه ومن هدى بهدي الى يوم الدين مبوكي جلدي مبوكي طالبي شي فيب فسون كاداغو نيغي لين نويو di len ndokel di len siar di len ñaanal yu ak jamm ci fu ngeen man nek di ko sun biir xol di ci jiital siyaar ya ak nuyoo ak ñaani sunu kilifa Mawlana al Cheikh Mouhamadul Muntaxa Bachir xalifatul am di taifatu muridiya ayadahu llah wa nasarahu bi barakat jaddihi xaadim rasul ak sunu kilifa yëpp Cheikh Ahmadou Maxtar ak sëñ Moustapha ma ne ci bopp kër Cheikh Mouhamadou Lamine di sant mbokk jullit yëpp ak taalib yëpp ak wëli rek xarit yi képp ku xam ne seq na yiw ci bis bi ñu génn muy bisu sunu sëriñ sunu waajur Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké sunu sëriñ taxawaay yi ngeen ci am yëpp ku ci taxaw rek euh, loo ci taxawee rëy na ñun te ñu ngi ñaan yàlla fayal nu la ci barke waajuram Mawlaana Xaadim Rasul xam nañ jamono ji ni mu demee waaye teewut limi xat-xat ku nek rek sa yene feñal nga ko kon ni ngi ñaanal ñëpp ndax ñi wajoon ba togg seen togg ak dugg seen dugg ak ñi waajoon ñëpp xam nañ ngant yoy ak yene yi ngeen amal waaye euh, feñalat ngeen ci pas-pas bu ñu lo ñott ci yene ndax bi ñu déggee ndigal rek dañoo ko daal di topp ñëpp euh, te murit euh, jullit amatul sax jëfe ndigal rek ak bàyyi tere mooy ñuy wute rek ñeneen ñi kon bi ndigal ñëwee diggante bi li muy gàtt gàtt ci waajoon it dañ koo soppi mbégte ne euh, dugg ci li sëñ bi Tuubaa waxare mm, ne ba muy li mu sifaaru saadixal murit da cee bokk maa sababul ixtiyaar doo tànnal sa bopp daal lu sëñ bi taal rek day day gën a sam waxtaan rek la ñuy def kon nag feeñal ngeen ko ci ba ñëpp bi sëñ bi ne fomm nañ koy ku nekk fa nga nekk nga def ko fa te bool ci ak mbëgg ak bànneex loolu maa ngi sant sant ci daal xel di leen ci eh, gën a ñaax ndax loolu rek ma yoon ndax suñu kilifa yi nekk foofu rek lañ joxoon mm, suñu Mustafaa ndigal la jaw ci sëñ ay kilifaam sëñ Muntaxa may digle li muy war a digle rek lay digle ndax moo fi nekkal sëñ bi kon ñun buñ bokk ñuy sikki sàkk dañu am kilifa rek faw ba am ba euh, te doyloo suñu kilifa. Mm-hmm. ndax ndigal moom dañuy wax ne lëndëm bu fajar la ba nga fa yàgg rek leer la fay fekk lu du ndigal nag murit du ko jëfe kon ñëw leen sant ci pas-pas boobu dina ñaan yàlla di sant ñëpp ci jàll yëpp nag ak yi nekk di. yëkkati leneen diggal lu ñu ñor nag muy ndigal lu jóge ci sëriñ bi ndax liggéeyu sëñ Muntaxa bee ba mu ko yëkkati la mu wax dégg ko ñun ñëpp ñu déggu ko dane bum daal suuf te loolu yi nag euh, ñun rek la ko wax euh, taalibe yi sëñ Tuubaa yi ñoo ci war a jiitu ñun ñi sëñ Tuubaa dafa lépp nag ñoo ci raw kon maa ngi leen ciy soññ barki démb rek ci màggal gi démb sëñ Moussa soñal na ma ci ci bokk soñ ma am ba nga ne kon moom it ñor na ko lool ndax mm, bëgg na lañ defoon daaw ñu def ñaaram wala lu ko ëpp kon maa ngi soñ ñu ma bokkal fédération Cyril Massone ma ba sama bokk sëñ Xaadim Mbàkke Abu Madiyaan ak i rakkam ak magam euh, ak euh, sama njaboot bopp gépp mm, di leen soññ ñu jiitu ca teg bañ cee man ndax liggéeyu sëñ Tuubaa kii dañoo bëgg a dimbali rek ndax lu ma am def na ko ca te luñ ko jox defal na ko ca kon mm, bàq bu kii la euh, jëf jël li ne woon sëñ Saalih radiyallahu anhu euh, bi mu demee ci xel ko kenn duutu indi liggéey bu mën a liggéey loo di waaye xam ne sëñ Tuubaa moom amu tànk gannaaw sëñ Muntaxaa liggéeyam bii Euh, tawfeex a ngi ci joo xam ne njariñ a ngi ci te kem ku ne mën nga cee def soo ñàq euh, ba sa àddina jeex sax nag yàlla na jeex te ànd ak moom ndax liggéey université xam nga ko xam liggéey te xam xam ne du liggéey buy taxaw kon ku ne mën nga cee liggéey sëñ Tuubaa te ngërëmu sëñ Tuubaa rek dañuy sàkku kon sas bee damaa waxoon ne nañ def xuruufi Tuubaa 28 waaye defe naa dama caa juumoon ndax naa gaañ dañ ko dëgg rek defe ko noonu kon du bii yoon du wax loolu. Mhm. damay wax li ma bëgg. ndax dañoo fekk ci ay sànce ñu nit ci max firam booyee ña ngi fay liggéey euh, te liggéey bi ñor nañu ndax euh, màggal gi jigéen ñi xale yeek tuut tànk yeeg ñenn ñi mun ñoo ñàkk fu ñuy suturoo ndax nawet rek taw moo tax kër ga ñu ngi woon ci sànc di ko liggéey waaye yëpp bu ndigal sëñ jógee nag dañ koy teg mu bëgg nag mm, boole ko li mu bëgg daal mooy bu nu amee fukki million naa ko wax sëñ Xaadim Abbo mu jotal ko ñu ko war a jotal ñëpp fukki million daal laa bëgg te defe naa yomb na ndax ñu yaakaar Maulana Cheikh Abou Madiana mën nañ <laughs> deux mille personnes motul laa defe naa ma xam mu ëpp na bu ko ne joxoon dix rek ci dina <laughs> ñaat lay doon si bu deux millions waaw kon loolu na te am na ñu mën a joxe million am na ñu mën a joxe ñaari million kon daal liggéeyul Sëñ Tuubaa baa ngoog jëluma ko nag def sans poste mosuma leen ne kaay leen may ma dara nag suñu wëllëre ndax àddee waaye lu sëñ bi jox laajee sañ naa leen jot li fukki millions yi damaa bëgg buñ ko amee ci kàttanu yàlla yàlla mi ngi koy baaxee sëñ bi mën na ko buñ ko amee jël juróom-ñaari millions yi jox sëñ bi liggéey ba ñetti millions ñu def ko ci suñ liggéey be ñaari mën nañoo ànd te sëñ bi duñu ko tere mm-hmm. kon daal loolu mooy pas bi di ko soñ ñëpp di soñ saa bopp yàlla yàlla defal leen Euh, xéewal ak wér jamono yi naqar na waaye jamono yi neex nag kenn mën mos koo fekk li jamono yi naqar naqar yi ñu ngi ñu ngénte suñuy ngénte di jéetal di takkee na di faj suñu soxla di koy ñëw kon jamono yi neex kenn mos koo fekk pas-pas si rek bu bu bu mu naqari na pas-pas dëgër rek ndax sëñ bi toujours baakat yéene la dalay liggéeyloo ba noppi jox la sag bi te mooy def liggéey ba ndax li may wax rek di ko wax di ko répété kenn weddeegu ma murid yi amuñu wërsëg sëñ Tuubaa mu wërsëg ku ci yéene def rek bu si yéene cell rek euh, te wutin sell sëñ Tuubaa mën nañu ko jox bu boobaa boo àggut ca la nga bëggoon it boo defee rek mel na ne yéene mm, jullit yonte bi ne na ab laxu min amali yi kon na ñëpp yéen te fas yéen te xam ne lii ñu wax rëyut ci sëñ Tuubaa mm. te bariwul sax te buñ ci defee suñ pas-pas ak suñ yéene dinañ ko am maa ngi sant ñëpp ci la jàll di rafet njort ci liy bëgg a ñëw yàlla yàlla ah, sàmm leen aar leen def ñu ay jullit xàqan def ñuy murit saadix te mbas mi ñu dund ci jamono jii eh, ni ko sëñ bi waxee rek damay wax ne man aw ma dog yu may joxe aw ma ñaan yu may joxe damaa tënku li sëñ wax rek lay wax. Mm-hmm. jaamu yàlla bu fi ñëwoon la yàlla ko fi yàlla yàlla mosal ñu ci moom na yàlla def ndigal borom def suñu ndigal borom rek te ñu ni tënku sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek buñ ko génn biir buñ ko génn mukk di barakati xasida gi ma joxoon. اليمن وليس غير سرده قرفاها كل سكر سكر أحد المالك المكرم ملتحد فاس ساهر بالقرآن بالبر من ددي نجا بما يديم خير الشدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بألف خير ngeen kadi bàyyi ci alaji abdou aziz mbacke mu sëñ abou madiana baye fallu sëriñ baraba gannaaw bu ñu mu soññee ci liggéey bi nga xam ni dafa jot ndigal ca kilifa yi da tàmbali sëñ Mountakha ba ci suuf ngir na ko sëñ Mountakha wax woon liggéey bu mu laal suuf université bi lu bari dañu cee war jox woon na waaye sëñ bi neen na ko Seex Sidi Moxtaar daan waxee ku jox woon na ko joxewaat lii mooy ndigal ju sëñ Abdou Aziz Mbacké ñi ngi ñaanal ñëpp di soññoot waa fédération ndax jàmbaar ngeen wax dëgg yàlla mosu leen noppalu waaye nag kër sëñ Abou Madiane ku fa nekk rek loo bëgg loo yóotu yàlla mën na koo demal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa